ok alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi dellu siwaat di daje ci suñu téere bi nga xam ne mooy minhajul muslim boo abubakar aljazairi rahimahullah ñuy war a jël tey la nga xamee ne nii moo desoon ca almadatu xaamisa bañ doon jël ñu war a jël tey li ñuy tuddee allaqit ñu war a jël la nga xam ne mooy allaqit ñu ngi noonu tey jii moom mooy ñetteelu fan te la nga xam ne mooy jumaadal ula sun maam yi di ko tuddee rakkaati gàmmu muy tombeeg le 27 novembre ci 2022 bi naam bu dee mbokk yi gis nañu fa nga xam ne fa la ñu yem ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala te di xam ni bokk na ci jaamu yàlla mooy jullita toog di fàttaliku diineem la nga xam ne it moom mooy tax jaamu yàlla ga mat mooy lépp loo xam ni da nga ko caa dégg nga fas yéene bu ko jëfe jotee nga jëfe ko loolu rek mooy njëriñu xam waaye bu dul loolu xam-xam kese nekkul lu yàlla gërëm lu dul day ànd ak la nga xam ne mooy jëf kon yow mi yor sa téere day jàngale mu ni lii nga xam ne mooy allaqiit mooy taarifuhu allaqiitu aji ku ñu for tiflun yujadu manbuzan fi makanin ma mooy benn xale boo xam ne dañ koo gis ñu sànni ko ci benn place laa yu arafu lahu nasab kenn xamul kuy mbokkam wala yadda'ihi ahad te kenn wootewul ni maa ko jur ku mel noonu dañuy gis ni mooy ki ñuy tuddee ku ñu for mën naa nekk xale buy dox bu réer mën naa nekk ab liir bu ñu sànni te loolu suñ jamono tey ji moo ci ëpp léegi xukmuhu lan mooy atteeb lu mel noonu yajibu ala alkifayati axzuhu wa tarbiyatuhu loolu day day war ci mbooloo mi dafa am ñaari farata lu ñu tuddee fardul ayn mooy liñ doon def lii léegi ci timis jullit ñépp la war ñu julli moom lu ñu tuddee fardul kifaaya muy loo xam ne bu dee am na jullit ñu ca taxaw wàcc na ña ci des ñépp bu ca kenn taxawul mu nekk bàkkaar ci ñépp mu ngi mel ne mbokkum jullit faatu fii fardul kifaaya la am ñu ko sang am ñu ko julli am ñu ko dem suuli même bu dee ni amul fi benn mbokk su ko dëkk bi deful dëkk bi yëppee am bàkkaar su ko ñenn defee teggil nañ ko ñëpp di qawlihi taala bokk na ca wax ju borom ba wax wa taawanu ala albirri wa taqwa dee leen dimbi leen te ci lépp luy jur njëkk ak ragal yàlla wa li annahu nafsun muhtarama te it ab bakkan la dañ ko war a wormaal yajibu xifzuha te dafay war ñu daal di koy wattu kon loolu mbokk da ngay gis ni mooy atteeb ki nga xam ne dafa for benn bébé dañoo war a xam ne dëkk bi fokk mu am ku ko jël na benn waay bu ñu may nettali ndeysaan dafa dem ci boori raayu yaraax boobu guddi benn xale bu jigéen dajeeg moom na ko kii day sama doom la dama ñëwoon fii di liggéey am ko fi mënuma ko yóbbu suñ dëkk dama ko nar a sànni fii rek dimbali ma boo ko bëggee nga jël ko yóbbu moom it mu daal di koy jël yóbbu moom ca caam la sant dem woo mbokkam yépp na am naa doom damay ngénte mu nga noonu ñu demoon te ngénte la ñoo ko doon wax moo am bu gën a yéeme boobu boo xam ne bilal càmm mii xam na ko muy buraama bi daan mocc damm damm yi buraama daa dem ci armeelu Pikine yi gis ay xaj tiim benn bàmmeel di mbow mu ñëw dàq xaj yi xool gis ñu génne lu mel ne ab loxo mu gas ko muy ab bébé bébé bi commencé jooy fekk yaayam ñëw na ba sul ko foofu mais sunu borom nee na benn bakkan du dee lu dul ci ndégalu yàlla waaw benn bakkan du dee lu dul ci ndégalu yàlla mu génne ko yóbbu ko police ñëw mu dijjante ay kayitam tudde ko Muhammad normalement loolu léegi war na aw xalaat ñaar fukki at gis ngeen ala kulli xaal kon atte la ci jullit ñi bu ñu gisee benn xale mu am ñoo xam ne ñoo ko wattu yow mi yor sab téere mu ne ahkaamuhu ahkaamu laqiit hiya atte yey aju ci ku ñu formo yii yanbaxi li lil mutalaqatihi an yashhada alayhi day war ca kaka for mu seedeloo nit ñi ci loolu wa ala man wajada ma'ahu seedeloo it la nga xam ne fekke ne ko xaliba min mata'in aw maal ci bagage yum fekk mu yor ko wala alal jum ko fekke wala man de for naa fi benn liir mi ngi noonu wala for naa fi benn xale fekke naa ko ak nangam ñaareel ba in wujida laqiitu fi bilaadi islaamiya fa huwa muslim bépp xale bu ñu for ci dëkkub julit dañuy jàpp ne doomu julit la dañ koy considéré julit la walaw kaana biha gayru lmuslimin doonte ne am na fa ñu dul julit waaye maadaama la ëpp ci dëkk ba ay julit lañu képp kuñ fa for dañuy jàpp ne julit la loolu day am ci mag mu ñu romb mu dee bépp mag bu ñu romb mu dee ci dëkkub julit dañuy jàpp julit la lu dul ñu am màndarga buy wone ni du julit comme ñu fekkoon mu takk ab croix wala lu mel noonu looloo tax sunu mbokk yi ñoom ngoom jazahumullahu xayran nga xam ne ñooy doon dem ci hôpital yi di xool néew yi di leen génne néew yooyu nga xam ne nii inconnu lañu dañ leen fa bàyyi bépp néew bu ñuy génne dañuy jàpp jurit la loo dul ñu gis ci yow signe ay croix wala lu demee noonu waaye bu dul loolu dañu jàpp jurit la naka noonu it bépp xale buñ for ci dëkkul islam dañuy jàpp jurit la mi ngi noonu ñetteel bi in wujida maa laqit maalun unfiqa alayhi minhu bépp xale boo xam ne bi ñu koy for dañ koo fekkaale ak alal alal jooje dañuy dépense ci moom ci alal jooje fa in lam yujad ma'ahu shay'un unfiqa alayhi min bayti maalil muslimin bu dee fekk ñu ko ak benn xale du ne ki ko for moo gàddu ne moo ko war a dundal waaye bu amoon trésor public alali julit ñi julit ñi ñoo war a jël ci seen alal dundal xale boobe wa illa fa nafaqatuhu ala jamaati almuslimin su dee keesu julit amul comme suñ jamono tey ji ci tamit ña nga xam ne ñoo dëkk ak ka for xale ba war nañoo organiser xam ne dund xale boobu ñoom ñëpp la war ñu ngi noonu ñeenteelu atte bi miiraasu laqiit in maata wa diyatuhu in qutila li baytil maalil muslimin ka nga xamee ne nii dañ koo foroon kenn xamulu ko mbokk mu dem ba màgg na faatu jot naa am alal bàyyiwul ñu ko doon ci ñu jóge ci moom kon su boobaa alal jëm bàyyi dañ koy delloo trésor public ci keesub jullit ña bu ñu jógee fa la rey ko diye ba mu ba muy joxe dañ koy delloo ci keesub jullit ñi wal imaam huwa waliyuhu fi lqisaas wa diya ka nga xam ne mooy jiite jullit ñi kooku moom mooy féete woo ci fayu ca kaka rey mu ne nañ ko rey wala mu jël ci moom diya fa in shaa ixtasa iqtasa lahu su ko neexee mu fayul ko wa in shaa aqaza diya li baytil maal bu ko neexee mu jël alal ja ñu yóbbu ko baytul maal bi ci mujj in aqara rajulun an laqiita waladu bépp góor gu ñëw nag ne doom jii day maa ko jur ulxiq bihi dañ koy féeti la ak kooke ida kaana mumkinan an yakuna waladu su dee ne mën naa nekk kay ah kay li mu wax mën naa nekk ne doomam la su boobaa dañ ko koy jox mu féete woo ko ngi noonu wa kaza in aqarat bihi imraa ulxiqa biha ba benn soxna génnee yët ne doom ji maa ko jur dañ ko koy delloo mi ngi noonu ma sëñ ma cay nettali histoire bu yéeme bu amoon ci Saint-Louis soxna si moom dafa jël doom ji sànni ko ci dex gi wetu dex ga am benn soxna bu ko jël di ko yar di ko yar di ko yar ba mu nekk jànq ba ñu koy waaje maye yaay original ba génn na sama doom la dem affaire bi ñu dem ba dem ci tribunal mu indi ay preuve yu leer la sama doom la mais gars yi dañ ko mujj a condamné ne ko nag dund bi ñu ko doon dundal depuis mu nekk xale da nga koy fay gis ngeen ala kulli xaal ki ñëw indi ay seede na sama doom la su boobaa da ngay gis ne doom joojee dañ ko koy dañ ko koy delloo kon na yéen ñëpp xam ngeen ni yonent yàlla Muusa bokk na fitna bi ko yàlla fitnaal mooy dafa waxoon yaayam ñiy inspecté pour rey doomi góor yi bu ñu ñëwee delloo su doom ji sànni ko ci leex bi danaa ko mës a delloo si say loxo def ko yeneen ñii di ahlu firawna for ko xamuñu ko ko jur yàlla mii def lu ko neex ci histoire bu ngeen bu dégg bi ngeen yàgg dégg yéen ñëpp Muusa nangul namp benn xale benn benn yaay ñu mujj ko delloo yaayam ñu jàpp ne rek employé bu koy nampal la fekk mooy yaayam di ko jur gis ngeen loolee kon mbokk mooy atte yi ñu atte ci xale boobu moo am it liñ ciy wax mooy tuyaaba ju rëy rëy moo ci nekk mooy for ab xale daal di koy gàddu yaakaar naa suñu mbokk ba Amath Thiam suñ Bilal am na ku ñëw Abbas Ndaw jur fa doom daw bàyyi ko fa moom mu jël ko en charge yal na yàlla fay ko léegi xam naa jànq bu mag la léegi mi ngi noonu waaye nañu xam ni mbokk julit loolu tuyaaba ju rëy la nim nekk bakkaar bu bon bu rëy jël sa doom sànni noonu la nekkee bakkaar bu bon noonu la nekk tuyaaba ju rëy nga jël doom jooju yar ko négam jërim bi nga xam ne xam nañ ndeyam xam nañ baayam waaye baayam dee rek yonent bi alei salaam ne ki ka taxawu maag moom nii la ñuy def yowmal qiyaama ci àjjana ana wa kaafilil yatim ka haatayni yowmal qiyaama koo xam ni kon kenn xamalu ko kenn nga jël ko taxawu ko nañu xam ne loolu ci tuyaaba yi gën a màgg la bokk ci képp koo xam ni yàlla da ko yombal ci moom kon mbokk loolu mooy suñu bind bu jëkk su dee ni am na laaj yu ci aju incha allah mën nañ koo laaj bu loolu amul ñu dellu ci bind ñaareel ba incha allah naam bismillah naam mu ni kan mooy sama doom ah wa waaw kooko ki ki nga xam ne dafa ñëw walbatikuwaat ne sama doom la waala kuli xaal dafa def bàkkaar bu bon bàkkaar bu bon bi mu def mooy jël doomam sànni ko waaye comme ndar booba yàgg na nit ñëpp a xamante moom sànni na ko foofu mais xam ne ki ko jël loolu mu def nag bàkkaar la bu rëy rëy rëy ndax yéen ci bàyyi sa mu ne day na rek bàkkaar ki nga waroon a taxawu nga nga seetaan ko loolu bàkkaar bu rëy rëy la quand même ni nga noonu bu ca jaare woon dee nag dañ koy considérer dafa rey nit te lu bari ci nit ñi duñu yem ci jël seen doom sànni ko waaye dañ koy rey yaakaar naa suñu mbokk bi ñoom ngoom xam nañ ci dara ñaata koor la ñuy fekk ci ci ci ci morgue yi mooy dañuy jël rek sànni ci mbalit yi mi ngi noonu amma nag moom effectivement def na bàkkaar bu bon bu ñaaw donte ne islam da koy delloo doomam su dee ne am nañ preuve yu leer na doomam la wallahu subhanahu wa taala alam ndax loolu du nekk intérêt am kese day nekk intérêt xale bi mooy xale bi xam ne ñii samay mbokk lañu xam ne xam ay maamam xam yooyu moo gën a nekk ci moom personnalité que mu ñu jàpp rek dañ koo for noonu ndax ki ko for mënu koo doomawoo yaa ngi dégg may wax naan waa jooju nga xam ne dafa woote ne kaay leen ngénte waaye kaay leen ngénte du tax islam def ko mu nekk doomam déedéet suñ borom mu ne bu ngeen xamul seeni seeni baay ñu xam ne seeni doom yi ndey lañ ci diini ala kulli xaal war na leeral nit ñi ne kii du sama doom du ko adopté di ko jël di ko def doomoo lu dul ne war nañu ut pexe bu utul ko ay kayit ak duñ ko mën a wutale kayit waaye bi chartit mu leer ñëpp ne du doomu boppam wallahu subhanahu wa taala alam non waaleykum salaam moom yaakaar naa waxul ndax amu ko woon ci yoon dafa lañ ko li nga xam ne mooy lañ ko lu ko yoon di teg ci sànni gi mu ko sànni amma bu dee amu ko woon ci yoon loolu ñaar moo mën na nekk moo di ne dafa njaaloo woon sànni ko atte bi lislaam bi fi amoon daañ ko atte ci am doom gi mu am doom te amu ko ci yoon su dee musta sëy dañ koy war a dóor téeméeri yar su dee mas naa sëy dañ koy rey su dee mas naa sëy dañ koy rey loolu nag daa jotuwul dara ak bàkkaarub jël doom boobu sànni ko mi ngi noonu akarub jël doom boobu sànni ko loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw loolu kay loolu loolu bari na démb rek ñu ngi ma ci nettali histoire bu mel noonu boo xamee ne nii xawma woon sax ne danaa def dars bu mel noonu tey benn soxna dafa am do sunu njaboot yi xam nañ leen bu baax doomam bu jigéen dafa dem di dugg ci benn sëy d'accord lul ci sëy bi xale bu jigéen bi fépp ne waa ji lay àndal mu ne ko waaw kon yaa xam demal dogoon nañu moom mu dem fi mu doon liggéey benn ku jigéen ñëw daal di toilette ba jekk yor saagam def yor berdeem ñëw rek ne na ko dimbali ma waaye dama war a dem ci sage femme bi nangam nangam bàyyi ko bébé bi dugg génn dugg génn na mes yaa ngi dégg ñu wër wër kenn gisatu ko biñ demee police mu defar ay ay ay kayitam ak yëpp police daal di ko koy bàyyee mu ne nag doom jee dem nga yàlla may na ma doom waaye yàlla kuli xaal ki ñuy jël bébé bàyyee ko ko ak ki for bébé ñoo yem ñu ngi may nettali benn silmaxa fii ci Dakar benn xale bu jigéen moo ñëw na ko na ko am yàlla jox la mu jox ko rek mu uufal ko benn benn mbuus nee na mu jël ñaanal ko ñaanal ko bu mujj dégg bébé buy jooy ñu dem ñu dem ñu dem police fekk da ko koo bàyyee dem yoonam yaa ngi dégg wallahu alam naam waaw waaleykum salaam ndax am nga droit jox ko sa sant ala kulli xaal li gënoon mooy nga bañ koo jox sa sant ngir lënt bañ a am nga jox ko beneen sant ñu jàpp ne kii papam inconnu la balaa lënt di am ëllëgi ki si biir ndax mën na jur fitna digganteeg sa yeneen doom mu jàpp ne sama baay la sama nangam la bu dente ni da nga koo jox sa sant waaye ñu leeral ñépp ne dañoo bokk sant rek waaye du doomam loolu loolu itamit da nga islam du ko bañ li lisan bañ daal ñu feeñal na sama doom la mooy islam moom xamul fils adoptif comme ni ko tubaab xamee islam xamul loolu wallahu alam naam waaw dafa am question bu jëm ci lii waaw bismillah waaw naam naam waaw waaw pour maison yi nekk di yóbbu pour leen denc walla waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw déedéet déedéet képp koo xam ne da nga for ab xale wala su dami bopp amoo droit di ko teg ci loxoy kuudul ka nga jàpp ne dana ko mën a yar yarub lislaam su dee julit nga looloo tax di ko yóbbu ci ay village SOS ak yi dama noonu yooyu yëpp c'est des erreurs ndax kër yooyu yëpp christian yi chrétiens yi ñoo ko jiite su doon gis nga nag maison boo xam ne ay julit ñoo ko yor ay orphelinat yoo xam ne dañuy accueillir ñu mel noonu loolu moom amul problème ndax dañ ko yar yarub lislaam waaye ab tubaab jógee fële rek bëgg doom nga jël doom sa doom jox ko wala doom boo far jox ko déedéet ndax xale bi maadaama julit ñi far nañ ko rek seen responsabilité lay dugg ñoo ko war a yar yarub l'islam ba ba muy majeur mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw ah ah non xam nga dëkk bu l'islam jiituwul moom day day xaw a jafe ñu mën a wax di sosio l'islam mën a jël mais bu doon l'islam moom mi ngi fii dañuy jël ay matukaay yoo xam ni kër daañ defal ay kër yoo xam ni kër yi diine la ba mboolem xale yu mel noonu ñu mën leen yar yarub diine même bu dee ne amul jullit bu ko volontaire wallahu subhanahu wa taala alam waaye yaakaar naa mën nañ jël kon ñaareelu bind bi ñaareelu bind bi mi ngi nekk almadatu sadisa fi lxajari wa taflis mooy la nga xam ne mooy opposition bu ñuy def ci nit jël alalam fekk ko ba du ko mën a jëfandikoo beneen bi mi ngi aju ci ñi nga xam ni dañoo fayit ñàkk ndax lañ amoon yépp seeni bor ëpp na ko kon mu ne alxajr taarifuhu alxajru huwa man'ul insaan moom mooy ñu tere doomu aadama min atasarrufi fi maalihi ci muy nekk di jëfandikoo ci alalam li sigarin ngir gone gam nekk aw junuun wala teqidikoo gam teqidikoo xelam aw safahin wala doyadi gam doyadi aw falasin wala boog doon koo xam ne nii dem na ba amatul dara lu moomal boppam lim yor lépp ay alali jàmbur la xukmuhu lan mooy atteem alxajru mashu mashruun bi qawli llahi taala lii nga xam ne moom mooy fekk alalu doomu aadama bi yàlla jalla wa ala moo ko yoonal borom bi mu ne wala tu'tu sufahaa amwaalakum mu ne bu leen jox ñi doye di seen alal allati ja'ala allahu lakum qiyaama alal jooja nga xam ne yàlla da koo def mu nekk di lu leen di taxawal seenu dund waaye warzuquhum fiiha dee leen leen ca dundal waksuuhum te dee leen leen ca waddu mi ngi noonu mbokk gis nañu suñu boroom alal ji dafa jàpp ne alal yi mbooloo mi la mu war a taxawu nit ñi léegi nag képp koo xam ne mënta gérer alal mbokkam ya ko jege am nañ droit dem ca attekat ne ko dañoo bëggoon ci alalam ñu bañ ko ko jox su ko defee ñu gérer ko di ko di ca defal la nga xam ne moom la ca soxla la ca des ñu aar ko ba mu bañ koo yàq boo yoree sa téere mu ne wa bi amali rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci jëfi yonent bi ida xajara sallallahu alayhi wa sallam ala muaz maalahu yonent bi day fegoon na ci muaz ala lamja lama stagraqahu daynu bam demee ba labal ko la nga xam ne mooy ay bor fa baahu wa sadada anhu duyuuna yonent bi jaay lam amoon fayal ko ci ay borom xatta lam yabqa li muaz shay'un ba muaz defeetul dara kon mbokk dañuy gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na lum jëfe woon muaz ibnu jabal nga xam ne nee nañu yowmal qiyaama mooy yor drapeau borom xam-xam yi moom la yonent bi alayhi salaam ne woon muaz man dey dama laa bëgg muaz ku la bëgg laa foo jullee ba pare na nga wax allahuma a inni ala zikrik wa ala shukrika wa ala husni ibadatik yàlla yal nag ma jàppale ma lay fàttaliku di la sant ñu ngi noonu te di la jaamu jaamu gu sell moom la yonent bi alayhi salaam mujjoon nomi la nga xam ne mooy ambassadeur fële ca Yemen ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy faatu fa la ko fekk kon Muaz moomu mbokk ak loolu mu yor lépp ci ay daraja teewul ba mu demee ba ay borom njatt ko yonent bi alayhi salaam daa jël lam yoroon ci alal jaay ko fayal ko ca la nga xam ne mooy ay borom loole ngir bàyyiloo xel jullit ñi ñuy góorgóorlu ba luñ man di fay seeni bor ana yenn atte moo nekk ci loolu ahkaamu min man yaxjuru alayhim atte yi ña nga xam ni sharia maye nañu jël seen alal téye ko ka ca jiitu mooy assaxiir xale bu ndaw wa huwa tiflu allazi lam yablug lam yablughul xuluma mooy bépp xale boo xam ni jotagul gént di gis dara ay majeuragul wa xukmuhu atteem an tasarrufaatihi almaaliya gayru jaiz loolu day wone ne jëflante ga muy jëflante ci alal nekkul lu lislaam di yoonal illa bi rida walidayhi lu dul ci ndégulu ay waajuram aw wasiyihi in kaana yatiman walla kañ ko teg ci loxoom bu dee ne dafa nekk jërim wa yastamiru alxajaru alayhi ila albuluug téye googu ñuy téye alalam day continuer ba baa muy majeur maa lam yazhar minhu safahun lu dul ne ba majeure dañoo gis ci moom ak doyadi su boobaa fa yastamiru alxajaru ila salahihi su boobaa kon fekk alal ja day continue ba ba muy doon kuy jub wa in kaana yatiman muusa alayhi bu dee ne dafa jirim boo xam ne it dañ koo dénkaane fa xajaruhu yabqa ila tarshidihi fekk alalam ja day wéy ba baa muy tege ci yoonu njub baada buluuxihi gannaaw ba majeure li qawlihi taala suñu borom mu ne wabtalul yataama dee leen natt jirim yi nekk seen loxo xatta ida balagu nikaaha ba baa ñuy jot mën a sëy fa in anastum minhum rushda su ngeen yégee ci ñoom ak njub fadfa'u ilayhim abwaalahum amwaalahum delloo leen jëm ci ñoom seeni alal mi ngi noonu mbokk kon lislaam kim jëkk a gis ne alalam dañ ko war a téye waruñu ko ko jox mooy képp koo xam ne majeuragoo koo xam ne majeuragul alalam dañ ko koy géreel seet lam ca yeyoo ñu ko koy jox su dee ne moom dafa amoon alal alal joojee bàyyam mënoon naa dee mu am alal alal ji moo ko moom walla bàyyam deewul sax keneen na ko may alal bàyyam mi ngi dund su boobaay jutee alal ji kenn du ko ko bàyyee lépp lum cey jël di ko joxe di ko mayee di ca jënd di ko jaay fokk day nekk ci ndigalu ay waajuram loolee day continuer day continuer ba baa muy majeur su demee ba majeur tamit dañuy xool ndax moom mën na gérer xaalis waaye na doon ki bàyyam dee ak ki bàyyam deewul borom bi mu ngi ci jox la ëpp ci xale yi am alal mooy ñi seen bàyyi dee borom bi mu ne jirim yooyu alal ji na ngeen leen ko gérer di leen ci jox ñu lekk di leen ci wodd di leen ci taxaw suñ demee ba majeur ngeen yëg ci moom ak njub gis ngeen fa in anastum minhum rushda waaye même xale bi bu demoon ba majeur am na vingt ans waaye gisuñu ci moom maturité mën a gérer millions yi xaalis boobu kenn waru ko ko jox loolee dañ ko war a bàyyi bam doon ko mat ñaareel bi yow mi yor sa téere mooy as safiix safiix mooy koo xam ne daa doyee ci kenn du na dof la waaye dal yàqkat la doye di xamul ni muy gérer wa huwa almubazzir li maalihi bi infaqihi fi shahawat mooy koo xam ne alal lu dugg ci loxoom ma pasar pasaree ko ci ay bànneexam aw bi suui tasarrufihi wala it la nga xam ne mbonuk jëflanteem du xam lu muy jënd du xam lu muy jaaye li qillati maarifatihi bi masaalihi njëreelam néew xam-xam ci ni muy lu koy jëriñ bépp famille boo xam ne xam nañ ci ñoom koo xam ne noonu la mel am nañ droit dem ci àttekat bi ne kii dañoo bëgg ñu def opposition ci alalam ba nga xamee ni du mën a jëflante lu dul ne dañ koo assisté ci suñu ndigal su booba fa yaxduru alayhi bi talabi min warasatihi des na fekk alalam ca ñaan ga nga xam ni ñaan na ko ñaka war a doon fa yamna'u min at-tasarrufi fi malihi su boobaa ñu tere ko ci muy jóg di jëfandikoo alalam bi hëbbatin ci maye aw bayin aw shira wala jënd wala njaay xatta yarshuda ba baa ñuy gis ci moom kat kii ak njub nekk na ci moom léegi loolu bari nay am ñoo xam ne nii masalan seen bàyyi dafay dee bàyyi leen ay millions balaa un an ñu pasar pasaree lépp yàqu ay nekk ay drogué nekk ay doxankat nekk ay nangam loolee bu dee ne ña ko siq di ay kilifaam am nañ ci ay preuve yu leer bu deen atte islam am na fi suñu demee am nañ droit def opposition ci alal ji kon fa inna tasarrufuhu ba'da alxajri alayhi lépp loo xam ne nii da ko jëfandikoo gannaaw bañ ko fegee fa tasu fa tasarrufatihi batil la yunfasu minha shay'un keroog ba attekat bi dogalee ne alal ji amatul droit di ko jëfandikoo képp kum dem maye wala mu jënd wala mu nangam ay mbokkam am nañ droit dem dindi loolu wa ma kaana qabla alxajari alayhi fa nafizun la yuraddu minhu shay'un amma la amoon nag avant ñu ko yóbbu ci attekat bi loolee moom même bu ci ak yàq amee it kenn mënu caa dellu gannaaw mi ngi noonu ñetteel bi mooy kan mooy al majnun ki nga xam ne daa dof loolu moom jàpp naa suñu loi yi sax d'accord nañ ci almajnun ki nga xam ne daa teqali ko xelam wa huwa man ixtala aqalahu fa daufa idrakuhu koo xam ne xelam dafa jaxasoo mu néew ak yëg-yëgam ci xam fa yaxduru alayhi kooku dañoo war a fekk alalam fala tanfuzu fala tunafazu tasarrufatihi kenn du wéyal ay jëflanteen illa an yabraa xanaa lu dul ñu yëg ne wér na wa yahuuda ilayhi kamaalu aqlihi wér na bañ yëg ci moom xelam ne mat na sëkk mi ngi noonu na doon loolee dafa doon def complètement kooku moom dañu xam ne def na complètement am na ñoo xam ne ni dañuy am ay crise yu leen di dëkkal di leen daaneel di yóbbu seen xel ay diir diir boobu xelam dem lépp lu muy jëf kenn du ko wéyal fa baa xelam di dellu soit ci moom loolee yeneen ci bàyyi salaam dana woon rufi alqalamu an salaasa ñetti ñii kenn du leen bindal benn bakkaar lu waral loolu mooy seeni jëflante islam da koo considéré wul ki ci jëkk anil majnun al maglubu ala aqlihi xatta yabraa ki ci jëkk mooy koo xam ne nii dafa dof mooy xelam dañ koo not ba baa xel ma di dellu si ci moom mu wér wa ani naim ak ka nga xamee ne nii dafa doon nelaw xatta yastayqisa ci nelaw lam def ci biiri nelawam islam dafa ko toppee wa ani sabi xatta yaxtalima xale bu ndaw bi majeuragul lam def ci ay bakkaar islam da ko ko toppee loolu it kon képp koo xam ne am nga jege ñaale boo xam ne nii dafa teqali ko xelam yàlla wërsëgal ko alal am nga droit dem ci loi ñu def opposition ci alalam ba dootu ko mën a jëfe ma gis yëg ci histoire bu yéeme yéeme yéeme nga xam ne ki mu dal moo ma ko wax benn góor goo xam ne nii da daan ñëw fii yàlla dénkoon ko alal bu bari yàlla dénkoon na ko alal ci milliardaires yi sax laa la wax ci la bokkoon mas nañuy nettali mu ne sama noon bi gën a rëy ci àdduna mooy sama taw bu góor xoolal loolu mbokk julit sama taw bu góor li suñu borom ne seen alal yi fitna la ak seen doom yi xam nga nee na de day jël alal di leen jox mu ne jox naa ko xaw ma ñaata million mais ni mu bëgg ma jox ko alal di joxuma ko noonu bis mu piège ma moom ak sama jarbaat doomam bi mu jur ak jarbaateem piège ko yóbbu ko hôpital de Mbao yóbbu ko pour pikiir ko ñu ne daa def ngir ñu mën def opposition ci alalam la ko ci yàlla musale benn médecin li gis xàmmee ko yuuxu ko kooku ñëw mu ne ko dimbali ma ñii li la ñu bëgg a def médecin boobu moo ko sauvé xoolal ma loolu mbokk jullit te loolu bu doon te ne ne am na ba ñu yóbbu ko bañ classé ne dafa dof jeex na dañuy dem rek ci notaire xool ñu ne dof na léegi alal ji léegi moo koy jël kaza wa kaza gis ngeen waaye ala kulli xaal loolu moom cas exceptionnel la waaye li ñuy bëgg a wax rek mooy ku yàlla nattoo koo xam ne nii sab jegeñaale la yaay ña sus te moom nga gis ne xelam teqalikoo na ak moom am nañ droit dem ci loi ñu def opposition ci alalam ba alal jooju dootu ci mën a am accès su ko defee ñooñu nga xam ne ñooy ay mbokkam ñoo koy taxawu lépp lu mu aaju woo ci alal ñuy defal ko ko waaye moom duñ ko bàyyi moom muy yegg ci alal ci ñeenteel bi mooy almarid almaridu ki nga xam ne dafa feebar almaridu huwa man marida maradan yaxaafu minhu alhalaak ki feebar feebar boo xam ni ragal nañ ci moom ne kii moom lee mu dee léegi mu al ko aadatan ci la ñu xam kii moom mi ngi nekk li ñuy tudde tey phase finale te doon ci cancer yi la wala ci lu mën a doon fa inna li warasatihi al mutalabatu bil xajari alayhi ña nga xam ne ñoo ko war a doon suñ yégee ni kii kat mi ngi jël alal ji di ko tasaare ngir xañ leen ko am nañ droit dem ci attekat ngiree alalam jooju ñu bloqué ko maadaama dem na ba il est condamné ci malade te ne kii la mu dee bu ko defee fa yamna'u min at-tasarrufi bima yazidu an qadri xaajatihi su boobaa attekatu lislaam bi bu xamee ne ñii li ñuy wax dëgg la am na droit bloqué alalam lu dul ci liñ yëg ne lii aajo la bu munta ñàkk ci moom min aklin wa shurbin wa malbasin wa maskanin ci lépp lu muy war a lekk di ko war a solo di ko war a dëkkee ak wa dawain xatta yabraa aw yahlak wala lu muy fajoo ba ba mu doon koo xam ne nii dafay wér wala mu doon koo xam ne nii dafay doon koo xam ne ni ku alku la loolu mbokk moo aju ci ci wàllu wàllu wàllu googee ma xamul bilal fan la noo digg toll naam wala kulli xaal mën nañ jël rek bunt bi ci tegee mu ne mooy lan mooy a taflis a taflis mooy lan mooy koo xam ne dañ koy sisir dafa perte complètement daanu complètement ki daanu a taflisu huwa an yas an tastasriqa duyuun al insan jamia ma yamliku mooy koo xam ne dem na ba borom ya mu yor lépp lu mu amoon bor ya ñëw na ba ëmb ko ba tiim ko ba nga xam ne tey jii bu dee woon tey bu ñu ko doon miraas ay borom dañuy ëpp am amam falam yusbih lahu fi maali fi maalihi wafaun li duyunihi dem na ba alalam yépp tey bu ñu ko jaayoon mënut a fay ay borom ko mel noonu da ngay gis ne attekat bi am na droit bloqué alal joojee fayal ko ci ay borom mi ngi noonu comme niñ ko jàng sànq ci moos ahkaamuhu li taflis ahkaam lii nga xam ne ni moom mooy nit ki perte ñu war ko saisir ay atte ci nekk ba ca jëkk alxajaru alayhi ida taalaba bi zalika algurama mooy ñu fekk alalam ba dootu ko mën a jaay dootu ko mën a may su dee ne ñam yoral bor ñoo demandé loolu ñoo laaj loolu aji attekat ba ay asaabu duyoon mooy ña nga xam ne ñoo yor bor ya ñoo moom bor ya ñaareel ba yabiu jamia ma yamlik ma ada libaasuhu wa ma la budda lahu minhu su boobaa i tamit day dagan ñu jaay lépp lu mu moom ba mu des yëre yam yi sol ak lu munta ñàkk ka taamihi wa sharabihi lu mel ne lekkam ak naanam summa qismatu zalika ala alghurama muhassasata muhassasatan bi hasbi duyunihim gannaaw ba ñu jël alal joojee séddale ko borom bor ya ku nekk na sa bor toll ci pourcentage ñu jox la ci lu mel noonu ñetteel bi man wajada min alghurama mata'ahu bi aynihi lam yataghayyar aqza aqzahu duna baqi alghurama su doon ñi ka lebal waa ji biñ kiy saisir yow fekk nga ca sa alal ca alal ji soppeekuwul masalan lebaloon nga ko benn portable ñi ngi koy saisir portable baa ngi nii dara néewu ci yow yaa gën a yee ci jëlal sa portable man adraka mataahu bi aynihi inda insan qad uflisa fa huwa ahaqu bihi noonu la ko yonent bi alayhi salaam waxee képp ko fekk alalam ci koo xam ne dañ koy saisir di nangu alalam moo ci gën a yey wa haza mashhur mashrut aydan loolu dañ koy chartool bi an la yakunu qad aqaza ca lii yëpp la koy waral mooy day fekk moom matériel boobu jotu ci woon a jël dara ci avance bu ko waaj a avance woon aqaza min samanihi shay'an wa ila bu dul loolu fa huwa uswatul ghurama su boobaa it day topp ña leb la woon rek ñu bokk ko fay ñeenteel bi man sabata isaaruhu inda alxaakim koo xam ne nii attekat ba saxal na ne kii kat munul fay lii bi maana annahu lam yakun ladayhi maalun aw mataaun yubaa moom amul alal amul benn marchandise buñ ko mën a jaayal fa yusaddida bihi daynahu ci mu mën caa fay borom fala tajuusu mutaalabatuhu wala mulaazamatuhu su boobaa it islam du ne fokk dañ koy topp di ko bundu xasaal di ko jàpp li qawlihi taala wa in kaana zu usratin fa naziratun ila maysara suñu borom nee ne képp ku ngeen yëg ne moom daal lott munta fay su boobaa bàyyi leen ko ba mu mën a fay mu teg nag suñu luwaa réew yi moom bu doon looloo beneen affaire la wa li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam lil ghuramaa'i ahadil madinin min as-sahaba yeneen ci bi ñëwoon na wax ñeen ñu lebaloon kenn ci sahaaba yi xuzu ma wajadtum wa laysa lakum ila zalik jël leen li ngeen moom li ngeen gis du leen ñeel lu dul lii am na ñu koy delloo ci xadisu Muaz bi njëkkoon a jàng ay Muaz borom ya lam yoroon fayu ko yonent bi ne leen ne kii lim yoroon lépp jaay nañ ko séddoo leen lii li ci des nag ngeen xam ne da ngeen koy bàyyi gannaaw bu mooy ida qasama al maal ñu ngeen doon ida qusima al maal wa zahara garimun lam yakun lahu alima bil xajr bu doonte ne dañoo séddale alal waay ja am na keneen ku mu yoroloon ca moom yëgul woon ne kii fekk nañ xaalisam ba alalam ba di ko séddaloo wa yajib wa yabiul maal mahjur alayhi yëgul woon nañ ña ngay jaay alalam da nga xam ne dañ koo fekk alal xurama o mi ngi noonu mu ne kon ku mel noonu rajaa alal xurama bi xaqihim min al maali muxaasasatan lahum benn waaye ngi nii yëg na ne diw day sisir nañu alalam ba jaay nañ ko séddale nañ ko nam yoroloon bor moom bañ koy def yëgu ko su ñëwee ci àttekat bi ne ah man kat yoroloon na ma cent mille francs su boobaa dañuy delloo waat alal dañu séddale woon diviser waat ko pourcentage kookee lam ca yeyoo ñu daal di ko koy jox li ci mujjoon mooy man alima bil xajr ala madin mi ngi noonu suma amalahu laysa lahu an yuxas an yuxaasasa alxurama képp koo xam ne nag yëg nga ne kii kat si sir nañu alalam ba pare nga wëlbati ku naan da nga koy lebalaat ku mel noonu kenn du la bokk ci la ñuy séddale borom bor ya allazina waqa alxajru lahum ñooñi nga xam ne saxoon na ñu fegoon alal ja ñeel leen wa yabqa daynuhu wa yabqa daynuhu fi zimmati almuflis alal ilal moy ilal muyassara ilal maysara bu ko defee day sax bor bu mujj boobee ca kulli rek ka lépp ba ba ak yombal di ko am mbokk kon loolu mooy li nga xam ne moom lañu mujj a jàng allahuma comme ni ngeen xamee masala yi jàng ko ci téere bi moo ñu ca yóbbu ca léeg-léeg da ci am yoo xam ne maadaama atteb lislaam amu fi daanaka pour nga fekk fu ñu koy jëfe dana néew waaye xam ngeen koy xam dana la yóbbu heure boo yëgee ne yoral nga doomu aadama yi àq te xam ne bu fi lislaam nekkoon nii la waroon a jëflante ak yow yow it nga góorgóorlu loo ca mën nga def ko ca di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla nañu yàlla fayal suñuy bor yàlla nañu yàlla sutural adduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ñaar lay bokkul suñu borom subhanahu wa taala dani min ba'di wasiyatin aw dayn ghayra mudar wasiyatan min allah mooy képp koo xam ne dafa faatu nañu génni la nga xam ne mooy testament ba mu dige woon ne lii suma dee nañ ko def gannaaw ba ñuy fay ay borom xayra mudaar ña nga xam ni da leen wax ñu jox leen ci alalam testament nañ leen jox seen alal bu ñu leen ca lor testament boo wét nañu xool baa du lor doom ya bépp testament bu passé ceeru alal kenn du ko utiliser xayra mudaarit mooy ña nga xam ne dañ leen a yoral bor nañ leen fay seen bor ba mat sëkk loolu la borom bi subhanahu wa taala wax xayra mudaar wasiyata min allah mooy lii lépp yàlla mooy dénkaane boo xam ne dénk na leen ko mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam kon xayra mudaar mooy ak bu ànd ak ñàkk a lor kenn noom amala kulli xaal kon mbokk ñu dayloo loolu wallahu alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain